Bonsoir amis chers internautes d'Amsa l'honneur et l'immense plaisir de me mettre encore une fois devant vous pour vous faire part d'une autre numéro sur euh, Feeling Dakar, votre première chaîne People. Ni ma koy waxee saa su ne chaîne bi leen di jox information yu leer te wóor te di leen toppal li nga xam ne moo di actualité. Today I'm at the beach maa ngi fi nga xam ne moo di plage e ao parce que ku wax lii di été daal di wax changement climatique xam ne actuellement il fait trop chaud nit ñi dañuy dem ci li nga xam ne moo di plage yi ñii dañuy ñëw en couple ñii entre amis entre copines ñii with family duñ def lu dut sama caméraman Ali daal may topp ñu daal di xool ambiance su plage bi. si. <laughs> salaamaaleykum nuyu naa leen ci lu ngeen ne mën naa dugg nii waaw defal nii <laughs> ça va. eggal lañ fi de. ci maa ngi si jaam. tur bi nan la. astu. tey da nga ñëw ci plage bi lan moo lay findi. ah dañoo ñëw feexal suñu xol yi xam dafa tàng ñu ñëw fi bu doxantu rek. ah noo gisee début été bi ça débute bien wala. ah commencé gum na neex de xaw ma nag mais xale nañ moytu ndox mi ndax ndox mi wóorul. waaw lan nga mën a wax ci sécurité bi. ah xanaa ñu yokk seen loxo rek bu ñuy di sangu ñu ñëw taxaw escorté leen xool leen bu ñuy sangu ñu xool na la ñuy sangu ak fa la ñu war a yem ñu limité leen. yaa ngi gis ne filaan mi ngi joxe parce que gis naa ambiance bi nii lii rek dafa neex ci dimanche bi nii. dafa neex rek nga jóge si nga ñëw toog rek jàkkaar ndox mi nii même sangu woo sax dafa neex. merci. ñaan la. day emporter la. waaw lay ñu ngi lay nuyu. ñoo lay sant. maman ñu ngi lay nuyu. ñoo tur bi nan la. aw fa madame fa restaurant dalal jàmm. maman dañ fi ñëwoon gis na yaa ngi teg plat yu neex yi di laaj comment nan la affaire yi di demee est-ce que gone yi ñu ngi jënd ou pas. waaw alhamdulilah ñoo ngi jënd de waaye xam naa fi ñu toll sangukat yi ñoo fi ëpp. ñoo fi ëpp. début été bi nu mu demee nii. waaye sant yàlla bu baax xanaa bagage yi seer ba jaaxal ñëpp. yaa ngi gis ne comme ça plage instant bi début bi ñëw da ngay gis nit ñi ñëpp ñoo ngi ñëw mais est-ce ñu ngi jënd. ñoo ngi ñëw mais xaaj bi dañuy sangu si. jënd wuñ. ñu ngi lay fay sama doom. tur bi nan la. Kaja. tey nag dañoo ñëwoon fii daal di xool li nga xam ne moo di ambiage plage bi. ñu gis ne yaa ngi teg affaire yu baax yi ñu lay laaj comment naka la affaire yi demee début bi nii été bi. waaw ça va alhamdulilah pour le moment moom gars yi ñu ngi wàcc si presque mu ngi commencé tàng. Mhm. mais yaa ngi gis ne ñu ngi daal di jënd ci affaire yi. bu baax sax parce que plage moom boo nee plage euh, lakk jën ngay njëkk xalaat teg si madda teg si ay seebo wax yooyu te macha allah gars yi moom apprécié nañu bëgg nañu affaire yi. ba ah, prix yi c'est abordable plat ñaata yéen di def noonu. plat yi moom mun naa waat plage yëpp si yaaw moo gën a yomb presque ñun dañuy jaayee mille. 2000 francs rek boo ñëwee wax seen waa kër nga ne lekk ba suur jarul ngay joxe dépasse noo gën a njaay. te tamit neex na xam naa ne set na aussi. ah tamit xool ma rek ci kaw suuf ndaara xool ma rek la tukulóor di wax ndaara ma rek. Ah, waaw ñun moom moom macha allah avant tout njaayu lekk dafa xaw a sensible parce que nit du jógee këram ànd ak njabootam nga bëgg leen jaayu la xamante ne da leen indil ay conséquences ñun duñ def loolu fajar la ñuy xëy uti ji jën yi bees tàq toggal leen yi mucc ayib. du am nga xamante ne benn conséquence lépp mu ngi nii dañ ko defar ba mu baax soble yi day mer marinaat bi lépp parce que ñun tamit si la ñuy añee suñu njaboot si la ñuy añee waaw plus de vingt ans ngay liggéey ci benn affaire moom kenn du la wax nan laax naka la pour dire vrai. Mm. merci beaucoup Feeling Dakar mu ngi lay merci beaucoup am naa ci yéen mbégte ba rëy merci beaucoup ay jàmbaar ngeen kontaan naa trop. cameraman da ngay xool sa kanam gaaw xel ma la wal dégg ngeen. wala loolu bi jàll na. non lewal laa xelal ni. sa ah, bokk tur bi nan la gën Samba Samba Ndiaye. Samba dañ la gis tey nga ñëw plage ah, lu waral teewaay bi fii. non yow ñëw décompressé rek. koo àndal tey ñëw fi madame wala. non am sama commune laa àndal am na ñaañu nekk ci biir géej gi. toog fi di xaar doo wax ma. non madame ñëwul madame ñëwul. Ah, waa nan nga gisee début été bi ak ambiance bi nii. non nii baax na da ci baax sax des fois boo sonee nii ci cours yi weekend nga ñëw décompressé mooy loolu waaw. kon daal yaa ngi yëg ambiance bi nii daal. waaw maa ngi koy yëg bu baax waaw. Feeling Dakar rek lay jaajëfal lowal bi <laughs> Aliou. lowal nga ko de. ah lowal am de dañuy ah, foo nii rek. Aliou après nga laal. Aliou daa war a naan lowal. <laughs> waaw. ma doo leen naan de. ma doo leen naan. am. waaw na de. ah. neex ah ok. ba ah, kii mu jël ah, ci man taxaw lu ma nekk laa koy. waaw sàmm bu la neexee. <laughs> ñu lay nuyu. maa lay fay. tur bi nan la. Nogita. tey dañ la gis da nga ñëw bese yaa woon ni lan ma war a teewaay bi. ah toog rek kër ga pare li ñuy def rek wéet ñoo doxantu si fii. ah nan gisee début été bi nii. ba ça va dañuy défouler et tout ça ça va. ambiance bi fii plage BCEAO bi nii. waa ça va nice cool ni nga ko gisee nii. Ah, yaa ngi koy dund daal. waaw ñu ngi koy yëg bu baax. Ah, mën a wax ci sécurité géej bi xale yeeg yooyu noonu. xanaa ñu def attention rek bu ñuy sang ñu xool limite bi fii ñu wax nañ yem ñu respecter barrière yi quoi def attention. merci beaucoup. allez merci beaucoup. Dakar ngi lay jaajëfal. allez merci beaucoup. man Waly. waaw. waaw bilaay mais man maay original bi de moom mooy photocopie. waaw. Ah, ah. fan nga jógee ñëw fii. man PA fii nii. yeah. nan nga gisee ambiance plage bi ak. waaw mbégte ah. tamit waaw yaa ngi moom. Mm-hmm. nan nga gisee début été bi aussi. waaw été moom ñu moom Sénégal été moom chaque année lay neex. dañuy ñëw fii fëlaale yooyu noonu sànnee ko. nan nga gisee sécurité ak xale yi nii. waa fii nii xale yi ah xale yi ñeme nañ dox bi de sànq rek maa ngi koy wax sama bureau bi nii dañuy xale yi dañuy dem ba collu bilaay te loolu tamit daa mel ñoo ko gën a ñeme mag. moo xale yi rek léegi dëgg bi xale amatul yow fii. koo àndal ñëw fii te couple wala ana madam. Ah, non man nag mooy loolu. Ah, moom xale yi nawuñu ma. ah xëy na damaa ñaaw. Hmm. Mhm. yow loolu nga gis. waaw ah, man est ce que man yow mujjee nopp sax man de yaa ma gënal ñëpp nii fu toll nii. leen <laughs> tagaare lay jaajëfal. waaw waaw. waaw kontaan nañ de. bi nuyu nañ la. waaw ñu ngi nuyu baax a baax. tur bi nan la. Fallou. moo jógee daal di ñëw tey ci plage bi nii. Euh, parcelle euh, Soprim. nan nga gisee début été bi ak ambiance plage bi. macha allah bari na ay nit bari na ay ambiance xam nga kontaan nañu waaw waaw ñu ngi sangu nice ma. lan moo la fi rek xam nga pour tànk sama xaw tànk xaw a taleeku tuuti. waaw waaw yow daal sangoo da nga ñëw toog nii. waaw laay tuuti xam nga waaw xool waaw situation bi xam nga rek yaa ma gën a xam waaw. oui. looy naan ah, daal da ngay ñëw toog nii jël sa café jàkkaarloo xale jigéen ñi macha allah waaw waaw. non xale góor daa mel ni ñu bëri nag dañuy toog fii di xool xale jigéen. waaw waaw waaw mais waaw noonu la baaxee xam nga. da ñëw jàpp sa njàmbur waaw bu amee kaf wala mad waaw waaw waaw tamit waaw. <laughs> waaw waay nag. oui. lan la war a def ci sa ci xale bii le daf ma fekk fi ma toog mu ne ma dama laa nopp. dama ñëfe sama life ba lijjanti benn job loolu ma jële sama job ma ñoo joxo xale bi sama yaay nee na ma boo gisatee gone mais na ko xolaat bu baax yow gone gi lay ratt na ma comme mbata bay na mu benn xar bu jigéen yóbbu sama xol be waaw ah, Feeling Dakar lay jaajëfal merci beaucoup ñu leen di fay merci beaucoup bon courage bon courage moo gën xëy sàcc xam nga nekk si mbedd bi def loolu def di agressé xam nga yooyu tamit am na yenn xam ne tamit comme quoi ñun nangu ñooy jàppale ay jeunes ñuy liggéey ñu nekk si doole moo gën ñu nekk si mbedd bi xam nga sàcc ay yoon loolu mu gën chance te da rey nit doomu jàmbur xam nga a ko léegi war ay waajuram ñu ngi toog yaakaar si moom xam nga xamoo li ñu yaakaare si moom quoi nga ñëw toroxal ko xam nga suñu yaay ni ñu yaakaaree fekkee yaa ngi noonu la ko yaakaare woon quoi moo gën ñu ñuy xëy xam si waar bi daal suñu doole li ñu am rek sant yàlla quoi. non noonu la bu la si dara jëlee. parce que li nga wax sànq insécurité bari trop. ci dëkk bi rey yooyu noonu. waaw te gars yi dinaa leen ñaax leen quoi buñ topp di ay ñaax yi xaar naa ay wutal la ñuy liggéey nañ jug nekk si waar bi ay góor yàlla lañ. borom kër gu ñuul dara jomb ko quoi waaw loolu laa lay ñaax loolu laa am si li may sànni quoi nañ fas jom ñi ñëpp ay góor yàlla merci waaw kontaan naa. mais nan nga gisee jaay bi mu ngi dox wala. waaw waaye macha allah waaw. sànq laa jógee sama gaal defar defar. est yaa gis mi ngi nii lii moo fi des. ñaaw yaa defar yow ay bilaay. te day neex de bu xalaat ñam dooli <laughs> bilaay. kon ñaata jaay. waaw sànq laa jaay bëgg rek am na lépp si biir quoi. Ah. waaw yi 1000 francs yi jeex moo fi des ma ànd ak sama doom ndey Sine Saliou jàpp si combat bi. ah si la nekk ñu si ñu baax a baax. tur bi nan la. kii la ñu gën koo xam si Ndiaye Couture. tey dañ la gis ci plage bi lan moo waraloon teewaay bi. waaw teewaay bi xam nga moom ñëw nii rek xam nga placé wu. suñ ngonnement bi ñu feexal xol yi rek xam nga wàcc stress bi tuuti ko ko stress bi dafa bari problème yi bari si dëkk bi day baax parfois nga génn nii xam nga xool dëkk bi nu kii parce que boo toogee benn place tamit du baax parfois faaw ngay dugg duggee xool fenn fu nekk di dugg si place bi xool di xool nit ñi ni ñuy dundee loolu moo ñu fi indi tey mais daa mel yow da ngay dëggal ne ñàkkum xaalis beeg insécurité bi ci réew mi taxul tamit nit ñi war a génn feexal seen xol ah non loolu moom man teguma ko jëmmi réew mi wala xam nga seen laa ko teg si nit ñi parce que pour man loolu du wàllum président du wàllum état kenn ku nekk yaay sa état bopp kenn ku nekk yaa war a sa bopp liggéey kenn ku war a yar sa bopp parce que kenn ku nekk boo gëmee sa bopp liggéey di ngay am man du doo baase wu suma Samba wala ma Demba dangay baase nga liggéey gëm sa bopp parce que xale bu góor lan la war a am jom xam fula ak fayda war a am lu mu sóoraale ëllëg kon waroo ko wékk si ay président wala keneen ak keneen parce que président bu ñëw boppam la fi nekkal wala bu ñëwee keneen moo fi ñëwaat ëllëg kon sa avenir boo ko bëggee teg si président kon war a gëm sa bopp nga liggéey yaa ngi dégg man loolu laa jàpp pour man man loolu moo sama explique la kon daal ambiance bi nii yaa ngi koy dund bu baax wala ambiance bi maa ngi koy dund instant dama ma doxal fii soo ma jógee bi fa laay delluwaat nekk si waare gis naa man moom loolu rek laa gëm quoi. Ah. dóor waar rek. mu yaakaar naa loolu rek moo fi mën a may de. mais ay caaxaan ak kii nii. Ah. yooyu mayoo fi dara. Ah. yaa ngi dégg ne temps yi ñuy wax naan euh, kii di Sadio Mané dafa takk ki nga xam ne mooy Zeyna Ndour ngay dégg ci beneen kooku Bamba ak ki nga xam ne moo di Virginie lan nga moom man a wax si ñooñu ay dëgg la wala daal. non xam nga nit ñi moom kenn ku nekk ak la ngay wax parce que kenn dégguñu ni Sadio Mané takk na wala dara kenn ku nekk day gis ay photo ñuy montage lu ne xam nga. yaakaar naa takk moom fenn la mën a amee muy sa jàkka ja bu alxayru jubee lañ man ne kii takk na wala kii takk na mais ay réseaux sociaux yi nii maa ngi dégg yëpp ay bambaji maa ngi koy dégg xam nga Sénégal moom yàgg na si loolu mën sax bu ma siiwoon bu subaa ñu boole ak keneen ah. mais yaakaar naa pour man takk moom li tax ñu naan takk moom sa jàkka ja alxayri jub kenn ku nekk xam ne lii kat parce que loolu mooy l'islam bu alxayru jubee moom l'islam sax dafa wax pour ñu siiwal ko yaa ngi dégg moo tax takk man bu xasee ba takk rek dafa war a siiw pour man mais ay pas ay récession yi gars yi moom ku siiw ñu wax yow. waaw ah, mais yaakaar wala. ah non loolu moom euh, moo xam walaaw axlam parce que nit ku nekk. yow li nekk si man mënoo koo xam li nekk see man mënuma koo xam. olof Ndiaye dafa wax ni ñetti li gént yaakaar naa dëgër fi mënu koy weesu man li ma fanaanoo yow bu ma ko waxoon mënoo koo xam man yaakaar ñoom comme ña nga ña nga fa nekk bu ndee génn ak bu ndee gën si ñoom la quoi yaakaar naa kenn ku nekk moom am nga sa vie privée boo xam si ne que moom kenn xamal la ko wala kenn siiwalal la ko. voilà Feeling Dakar ñu ngi lay jaajëfal Baye bi. waaw di leen jaajëfal yéen te xam ne seen liggéey rafet na macha allah di kontaan si yéen bu baax a baax. di leen wax ca kaw ca kanam. ngeen am lu baax na dem ba nekk ay télé yu mag a mag. international ah. <laughs> merci beaucoup tur bi bañ ku ma jël Babacar damay bañ. tey dañ la gis eh, yàlla. tur bi nga ñëw fii ci dimanche bi nii jël air nii ah. waaw waaw jël air nii rek xam nga rek tey dimanche bi moom gannaaw tey liggéeyuñ quoi waaw xam nga rek añ rek na xaaral ñëw place xam nga jël air tuuti. waaw. nan nga gisee début bi ça donne bien parce que ambiance bi fii neex na trop ah. waaw waaw neex na trop moom. waaw xam nga rek ñëpp daje xam nga. tey dimanche quoi liggéey amul. waaw pour ñëw place xam nga féexal sa xol. waaw xam nga foo waxtaan. waaw loo mën a wax ci sécurité bi fii parce que tamit xale yi dañuy gis ñuy lap ci lu bari ci géej gi. waaw loolu tamit gars yi war nañ ci jël xam nga. dimbale ci gars yi quoi. ndax sécurité tamit dafa baax xam nga di aar xale yi. ndax xam nga géej gi moom wax dëgg yàlla lu daas la waaw gars yi dañu war indi sécurité bu doy xam nga ñu xam fu ngay yem waa waaw wax dëgg yàlla xam nga dimbale gars yi daal waaw affaire di gën a baax waaw kenn bañ a sori quoi yem si bunt bi waaw xam nga du sa doo ñëwee doo fooyee ba sa heure ñibbi jot nga dox ndànk dem ñibbi waaw. yow koo man sama gars yi laa àndal. yow madame. madame non célibataire leen nekk. célibataire looy xool bay nekk célibataire tamit. ah waaw xam nga rek daa juróogul rek. ngay nga àndal. ngay la àndal jaajëfal. ok waaw fay nañ la. tur ah, dañ la gis ne tey da ñëw a ah, jël li nga xam ne moo di ah, Bessayaawo. waaw waaw tey dama non ñëwoon rek xama rek. ngoon maa bi nii dimanche bi nii yaa ma gën a xam ñëw fuddu tànk yi tuuti xoolaale nu demee nii rek yaa ma gën a xam. noo gisee été bi nii saa début. ah été bi moom wax dëgg yàlla taw féex moom neex na trop neex na trop wax dëgg yàlla. koo àndal. man sama gaa yooyu noonu. sa gaa yi ana madame. non ama madame <laughs> célibataire la célibataire. <laughs> nan nga gisee lan nga mën a wax ci li nga xam ne moo di sécurité géej gi parce que gis nañ ne instant bii nii da gis xale yi dañuy euh, ñëw si géej gi. waaw xale yi moom dañuy ñëw si géej gi waaye nag gaa yi fi nekk moom bu heure bi jotee moom dañ leen def nii pour ñu wàcc wax dëgg yàlla dañ taxaw bu baax moom. kon ñu ngi def seen liggéey. waaw def seen liggéey bu baax moom. Feeling Dakar lay jaajëfal. waaw ah, jaajëf jaajëf yéen tamit bu baax kontaan nañ ci yéen bu baax a baax. jël ma jël ma. yow laa bëgg de. man yow laa bëgg ma. Oh, la. soxna jaareetu laay. Ah, dañ la gis tey nga ñëw fii ci plage bi bëgg xam lan moo fi sa teewaay. Oh, au fait dañoo tàng ak été bi ñu nekk nii tàngaay beeg yooyu noonu ñu xëy tey ñu ne a pas ñu dem plage feexlu yooyu noonu yaa ma gën a xam. t'es venu seul wala t'es accompagné. ah je suis accompagné avec par ma famille là ils sont là. Mm-hmm. nan nga gisee début bi nii ak ambiance plage bi. ah fii moom xumb na moom sànq xawoon na wet sax mais moment bii xumb na bëri nit jàpp naa fi sax jën. waaw. <laughs> kon daal yaa ngi dund ambiance bi nii daal. ah 100 pour cent. Ah. waaw. ñu ngi lay jaajëfal. merci. Oh, le plaisir partagé. <laughs> Chers internautes di am saa su ne l'honneur et l'immense plaisir de me mettre encore une fois devant vous pour vous faire part euh, d'une autre numéro sur Feeling Dakar votre première chaîne people ni ma koy waxee saa su ne seen bi leen di jox information yu leer te wóor te di leen toppal li nga xam ne moo di actualité. del déglu del xool Feeling Dakar